jóge nañu assemblée ñu ngi sant député yi nga xam ne woote nañu budget ministère de l'enseignement supérieur 2021 euh, li ñuy wax ni mooy ci orientation yi ñuy jëm orientation bachelier ren Sénégal dafa am résultat yu nga xam ne dañ ci bég kontaan ci di am 72000 bacheliers mooy juróom-ñaar fukki junni ak ñaari ay bacheliers président de la république joxe instruction comme ni ñu ko defee daaw nañ leen orienté ñoom ñëpp ci institution privée yi publique yi Euh, ministère de l'enseignement supérieur taxaw ne mën nañ ko bañ koy taxaw di wax mën nañ ko dañ ci ja dañoo xool lan moo am ci université ñu waxtaan ceeg université yi université bu nekk joxe capacité ñu xam ne soixante douze yi yëpp bu ñu soixante douze bu ñu demandé mun nañ leen orienté leen li ci bees mooy dañuy orienté ci université orienté ci ISEP yi loolu daaw la amoon mais dañuy orienté aussi ci ren BTS si ñu ñooy orienté. parce que gouvernement bi dafa dajale lépp ku nga xam ne poste bac la enseignement supérieur moo koy gérer am nañu soixante douze mille places yu leer yu nga xam ne dañ koy tas ci université yi mais soixante huit mille ñoo décidé ñoo ne dañuy bëgg nañu ñu orienter leen altine ñu commencé orientation yi orientation nag compétition la mooy dañuy jàkkaarloo ku ci nekk da ngay ne lii laa bëgg sa morom yi nekk bëgg ku ëpp ku ëpp note moom mooy jàll ci critère bi nga jël. donc boo bokkul ci demande ci orientation yooyu mënatoo taxaw ba mu jeex nga ñëw ne nañ la parce que compétition la dañuy tëj bi compétition day jeex ñëpp nag la ñu dajale ñoom ñëppay compétir te du ñu bàyyi kenn ci ginnaaw daaw am na ñu wax ne am na ñu ñu bàyyi ci ginnaaw ñun ba léegi ñu ngi wane ne amul kenn ku ñu bàyyi ci ginnaaw ba fii may taxawee amul kenn ku ñëw kum ci ñun wan ne ne dañ laa bàyyi ginnaaw ñëpp la ñuy orienté comme daaw comme ren. non euh, bu ñu paree orientation yi ci ñetti semaine nga xam ne orienté nañu ñëpp dinañ jox maye semaine nañu maye semaine pour ku nga xam ne nee nga yow bokk euh, euh, demandé woon ñu orienté la def nga li nga war a def yëpp te orienté wuñ la boo ko wanee ñu orienté la mais boo ko wanewul duñ la orienté parce que boo bokkul ci compétition bi kenn du la orienté lundi lañuy door orientation yi fàttali na ko jeexal le 22 décembre waaw réalisa euh, réalisation yi xam nga euh, réalisation yi dafa am fu mu fu ñu ko teg dañ ko teg ci euh, li nga xam ne moom la président de la république bëggal enseignement supérieur du Sénégal fu mu ko placé ci ci PAP 2 bi ci ci plan Sénégal émergent le capital humain parce que dafa am importance ce qui fait que loolu ba mu ci demee président dafa investir ci njàng mi ci xale yi. Euh, boo jëlee euh, téeméeri milliards yu nekk ci budget bi vingt cinq yi daf ko dugal ci njàngale mi ñun enseignement supérieur am nañ ci lu nga xam ne deux cent cinquante milliards la par loolu lu am importance la loolu nag dafa tax dañ ci fonctionner les universités mais dañuy defar ñu ngi nekk di defaraat université yi nga xam ne ñu ngi fi nekkoon dinañ ko gën a tax dinañ ci gën a taxaw parce que tey université Ziguinchor am na lu fa def def nañ fay amphi def nañ fay salle de classe dinañu commencé jeexal travaux yi nga xam ne commencé woon nañ ko bambay am na lu fa def dinañu toog waxtaan ak ñoom parce que étudiants yi bàyyi nañu grève bi léegi dinañu toog waxtaan ak ñoom xool lañ leen leen mën a jàppale Saint-Louis noonu Thiès noonu dinañ fa def ay amphi am na yu ñu def Dakar bu ñu jàppee ci at yi yëpp juróomi at yi passé président de la république li mu investir ci enseignement supérieur waxuma li mu joxe mais li mu investir ci enseignement supérieur ëpp na six cent milliards loolu moo tax tey Afrique yëpp foo dem ñun ñi dañ ñuy ne yéen waa Sénégal ni ngeen di defee dafa gaaw ni ngeen di doxee dafa gaaw parce que mun mënuñu leen topp moo tax tey ñëpp d'accord nañ ne ñu ñooy ëpp enseignement supérieur en Afrique francophone. waaw xam nga euh, recherche bi fu ñu tell ñu wax ne recherche bi am na c'est vrai que recherche. am na problème mais recherche du lu nga xam ne vocation bi mooy budget bi Sénégal moo koy budget moo koy kii foo dem ci àdduna bi yëpp budget bi dafa am lu mu teg rek am ñeneen lañ teg am na jéego yu ñu war a def mais tey bu ñu xoolee recherche bi nee nañu 3 milliards lañ fi def mais loolu li nga xam ne dañ ko bindee recherche directement parce que jàpp ñu li nga xam ne université bu nekk li ngay investir si recherche investir si recherche mun na doon investir ci équipement yi mun na doon investir ci recherche yi fay leen ay prime permettre leen ñu dem ci ci ci instance yi loolu université la nekk ci biir université la nekk université bu ci nekk dafa am taxawaayam euh, tey jox bourse étudiants yi nga xam ne dañuy def recherche jox leen ay bourse loolu ci bourse recherche la tey tey master yi ñun li ñuy joxe ci bourse ñu nekk master vingt cinq milliards la par an ci recherche koy boole donc euh, li ñu bu ñu jàppee am nay effort yu ñu war a def mais mënuñu ko yemale ci 3 milliards yi bu ñu ko dajalee lépp ëpp na 40 milliards yi nga xam ne ñu koy def at bu jot ci recherche te loolu ëpp na euh, sunu yéene ëpp na foofu mais dinañ def ay effort ñu ngi dem léegi ci évaluation système bi évaluation système bi dina ñëw taxawaat ci ban modèle économique ak ban répartition budgétaire la ñuy am pour que université yi gën a jëm kanam